وأعز به بعد الذلة وكثر به بعد القلة صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا لهم على الحق إخوانا وأعوانا وبعد mbokk yi ñu ngi sant yàlla mi nga xamante ne nii ne moo ñu terale lislaam ñu ngi sant yàlla mi nga xamante ne nii ne moo ñu defal teraanga dooleel ñu may ñu ngëm yàlla mooy miinale sunuy xol moo ñu def ñu nekk ay soppe nekk ay mbokk ñuy seede na amul benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg bu dul borom bi subhaanahu wa taala moom dong la ñuy jaamu duñ ko bokkaaleeg dara ba wàccee téeréem bi mu nekk ak njub ak yërmande nekk ak leeral yitam ci lépp lu lënt ñuy seede ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la ci moom la yàlla gindee ci ak ci moom lañu yàlla la yàlla jàngale ñu ci moom ci la yàlla terale eh, gannaaw bi ñu toraxee ci moom lañu yàlla barale gannaaw bi ñu néewee ñuy julli di salmal ci moom ak ci waa këram ak ci saxaabaam ak képp koo topp ci rafetam ak bi su penc gannaaw loolu mbokk yi maa ngi sant sama borom maa ngi leen di dénk dénk sama bopp ragal yàlla ragal yàlla nag mooy gën ci préparation boo xamante nit ki dana ko préparer pour dellu ci boroomam mooy gën ji mbalaan moo xamante nit ki dana ko sàngoo mooy gën ji yóbbal boo xamante nit ki dana ko yóbbuloo mooy gën ji wasiila boo xamante ne nii ne nit ki dana ci jaar pour am ngërëmal borom bi subhaanahu wa am njéggalam yàlla mi ngi wax ci alquran ne ya ayyuha amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqaana wa yukaffir ankum sayyi'aatikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil azim yàlla nee na yéen ñi gëm yàlla su ngeen su ngeen yàlla de yàlla dana leen defal ngeen mën a teqale dëgg neen yàlla dana leen jéggal seeni ñaawteef dana leen faral seeni bakkaar yàlla moom yi mooy borom ngëneel lu mag li yéen mbokk yi nañ xam ne yàlla mooy kii maye ngëneel mooy dotti ngëneelam ci kaw jaamam yépp muy ngëneel lu bari lool loo xamante ne nii ne amul ngëneel lu mel ne moom te amul yamuwaay itam bari yaana ay ngëneel yoo xamante ne na ko dotte ci kaw jaamam yi bari yaana itam ay ngëneel yoo xamante ne nii dana ko sëmbërtal ci kaw jaamam yi muy ay xéewal yu rëy ak may yu rëy waaye ngëneel loolu la ca gën a rëy te nekk ca bopp ba mooy wéetal borom bi subhaanahu wa taala nangu na yàlla kenn la ba pare sellalal sellalal ko diineem ji sellalal ko jaamu ko ngir moom dong comme ne ko yonent yàlla yusuf alayhi salaam waxe woon wattabaatu millata abaai ibrahima wa ismaila wa isxaaqa ma kaana lana an nushrika billahi min shay dalika min fadlillahi alayna wa ala annaas walakinna akthara annaasi la yashkurun yusuf daf ne woon man day danaa topp diinay samay baay diinay samay maam diinay ibrahim ak isxaq ak yaqub ñoom day nekkuñu woon di bokkaale yàlla ak dara loolu yi day ngëneelu yàlla la lum ñu defal ñun te defal ko nit ñépp waaye nag li ëpp ci nit ñi dañu sant ngëneel lool yi bokk na ci xéewali yàlla yi nga xamante ne nii na defal nanu ko yónni gi mu ñu yónni ay yonent te ka ca mujj di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñuy jàngal nu ñuy jaamoo borom bi subhaanahu wa taala yàlla wax ci alquran ne huwa alladi baata fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatih wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikma wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin wa axarina minhum lamma yalxaqu bihim wa huwa alazizu alxakim dalika fadlu llah yutihi man yasha wallahu dul fadlil azim yàlla ne yonent bi day mooy ki nga xamante ne nii ne yónni nañ ko ci xeet woo xamante ne nii ne xamuñu njàng xamuñu bind mu nekk ab yonent boo xamante ne nii ne ci yéen la bokk mu leen di jàngal layam yi di leen yar ci laayam yooyu leen jàngal alquran ak sunna donte nag eh, ci réer ngeen nekkoon ca bu njëkk mu am ñeneen ñoo xamante ne nii na dañuy ñëw seen gannaaw ñoom it ci loolu la ñuy tegtaloo loolu yi nag mooy ngëneelu yàlla li nga xamante ne nii ne dana ko jox ku ko neex yàlla mooy borom ngëneelu màgg le bokk na ci ngëneelu yàlla li nga xamante ne nii ne defal na ko xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy tànn gim leen tànn ñuy donn téere bi muy alquran xeet yu njëkk ya dañoo gisoon ne daanaka ñi doon mokkal seen téere yi ñooy ponkal ya ñooy fóore ya ñoom rek ñoo daa mokkal alquran ñoo daa waaye ñun nag moom gone lu tuuti tuuti boo jàngee man ngaa mokkal alquran yàlla wax ci alquran ne summa awrasna alkitaba alladina astafayna min ibadina fa minhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bilxayrati bi huwa alfadlu alkabir yàlla ne done la nañu leen téere ba nga xamante ne nii ne tànnal nañ ko sunu jaam yi téere boobee nag am na ci ñoo xamante ne nii ne danañu jàng téere ba waaye doo tee ñuy tooñ seen bopp am ci ñoo xamante ne nii ne ñoom danañu diggu dóomu am ñoo xamante ne nii ne ñoom dañuy fëx rek dem ci borom bi subhaanahu wa taala loolu nag mooy ngëneelu mag la bokk na ca ngëneelu yàlla li nga xamante ne nii ne defal na ko jullit ñi bëgguloo gim leen bëgguloo ngëm yàlla taaralal leen ko ak bañloo gim leen bañloo weddi yàlla ak mooy yàlla walakin allaha habbaba ilaykum al imaana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum alkufra walfusuqa walisyan ulaika hum arrachidun fadlan min allah wa nicma wallahu alimun hakim yàlla nee na waaye yàlla mooy ki nga xamante ne nii ne moo leen bëgguloo ngëm yàlla moo ko taaral ci seen xol yi moo leen bañloo ak kiifiir aku kàccoor aku moy yàlla ñooñi nga xamante ñoo melakaanoo noonu nii de ñooñu jub lool nag ngëneel la gu ci yàlla ak xéewal yàlla ma aji xam ji mooy ko xereñ ki bokk na ci ngëneelu yàlla lim ñu defal mooy jëllale gim ñuy jëllaleel sunuy ñaawteef di ñu sellalal sunuy bakkan walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin allaha yuzakki man yasha wallahu samiun alim yàlla nee na bu dul woon a ngëneelu yàlla li mu leen defal ak yërmaaneem kon kenn ci yéen du sell du baax waaye nag yàlla mooy sellal ku ko yàlla mooy baaxal ku ko bokk na ci ngëneelu yàlla lim ñu defal mooy dimbale gim ñu dimbale ba musal ñu ci buumi seytaane yi walaw laa fadlullahi alaykum wa rahmatuhu la tabaatum seytaana illa qalila yàlla nee na ba dul woon ak nganeelu yàlla li ak yërmandeem kon dey ñu bari ci yéen danañu topp seytaane duñu mucc ci fiiru seytaane yi lu dul ñu néew bokk na ci nganeelu yàlla lim ñu defal mooy ne musal gim ñu musal ci réeral gi nga xamante ne nii ne réeralkat yi ñu ngi koy réeral mu ne walaw laa fadlullahi alayka wa rahmatuhu la hammat taifatun minhum an yudilluuk وما يضلون إلا أنفسهم ما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما yàlla nee na bu dul woon a ngëneelu yàlla lim leen defal ak yërmandeem kon day dana jóg am mbooloo ci yéen pour réeral leen waaye nag duñu réeral kenn ku dul seen bop duñu leen lor loolu yi nag mooy ngëneelu yàlla lu mag li bokk na ci ngëneelu yàlla lim ñu defal mooy ne xéewal gim ñu defal ba ñu am ay ndam defal ñu doole defal ñu ay ngañaay defal ñu ak jàppandal te loolu lépp muy sabab ba mooy ki ñu ko defal wala in asaabakum fadlun min allahi su fekkente ne nii day am ngeen ngëneel da ngeen xam ne loolee ma nga jóge ci borom bi subhanahu wa taala ñu gis ne yonente yàlla Suleymaan keroog ba nga xamante ne nii ne nitam ñi andil nañ ko seesu buuru sababa ba dellowul nga ne la ci kenn ku borom bi subhaanahu wa taala daf ne haada min fadli rabbi li yabluwani a ashkuru am akfur fa man fa innama yashkuru li nafsi fa kafara fa inna rabbi ganiyun karim daf ne lii day nga ne sama borom la waaye na daf ma ko defal ngir nattuma ndax man dama koy sant wala dama koy weddi waaye na nañ xam ne ko sant yàlla sa bopp rek nga sant waaye ku weddi yàlla danga xam ne yàlla moom ku doylu la ku tedd la bokk na ci ngëneelu yàlla lim ñu defal mooy ne koomal gi nga xamante ne nii ne koomalal nañu ko gannaaw bi ñu ñàkkee lool gannaaw bi ñu amee dund gu lool mu ne wa in xiftum aylatan fa sawfa yunikum allahu min fadli inchaa inna allaha alimun hakim lii kañ la ko waxoon mooy nag keroog ba mu teree yéeféer yi ne buñ duggati màkka te ñoom ñoo fa andi seeni alal su ko defee jullit ñi tiit dafa ne su ñooñee ñëwatul ñoom duutuñ amati dara yàlla ne wa in xiftum aylatan bu fekkente ne nii ne da ngeen a ragal ak ñàkk fa sawfa yunikum allahu min fadli na ngeen xam ne yàlla mooy ki leen di woomalal ci ngëneelam insha inna allaha alimun hakim saa ko neexee moo koy def te yàlla moom mi ku xam la ku xereñ bokk na ci ngëneelu yàlla li mu defal jaamam yi mooy def gi mu def bëccëg ñu ci wut di ci sàkku xéewal mu defal ñu guddi mu nekk sunu dallukaay sunu noppalukaay allahu alladi jaala lakum layla li taskunu fihi wannahaara mubsira inna allaha la du fadlin ala nnaas walakinna akthara annaasi la yashkurun yàlla nee na mooy ki nga xamante ne nii ne moo def guddi ngir ngeen ci dallu ngir ngeen ci noppalu mu def bëccëg mu leer naññ ngir ngeen ci sàkku lu ngeen da ngeen xam ne yàlla de mooy borom ngëneel mooy borom xéewal gi nga xamante ne nii moo ko defal jaamam yépp waaye li ëpp ci nit ñi dañu sant xéewal googi bokk na ci xéewalu yàlla yim ñu defal mooy ne saa bu ñu defee benn bu baax mu fulal mu ñu ko fukk suñu defee benn bu bon mu bindal ñu benn bu bon boobu man jaa bil xasanati falahu ashru amthaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha yàlla nee na képp koo xamante ne nii ne andi benn bu baax da am fukk yu mel ne moom waaye ku indi benn bu bon duñu la fay lu dul benn bu bon boobee dong bokk na ca ngëneelu yàlla li mu defal mooy ne yeexe gi nga xamante ne nii dana ko yeexe sunu mbugal ak luñ ko moy moy moy ak luñ ko weddi weddi wa inna rabbaka la du fadlin ala nnaas walakin akthara nnaasi la yashkurun na ngeen xam ne day yàlla de mooy boroom ngëneel mooy boroom ndimbal mooy borom yërmaande ci kaw jaamam yi waaye li ëpp ci nit ñi dañoo sant lool kon mbokk yi nañ xam ne ab jaam do am wërsëg mbaa am xéewal mbaa am jàmb mbaam am ndimbal lu ne loole ngëneel la loo xamante ne nii ne yàlla da koo defal ak mbaax la goo xamante ne yàlla ko yàlla da koo defal kon nag rik rek waaye na delloo ngëneel la ci borom bi subhaanahu wa taala ama bikum min ni'matin fa min allah amul lenn benn xéewal boo xamante ne ngeen ko am lu dul ne nga joge ci borom bi subhaanahu wa taala nañ xam ne itam yàlla moomii di borom xéewal nañ ko ko ñaan wa in wa anna al fadla bi yadillahi man yasha wallahu dhul fadli al azim daal ci loxol borom bi subhaanahu wa taala la nekk koy jox ku ko ku ko moomi mooy borom ngëneel lu màgg la aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa li saa'iri muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وكفى وسلام على من اتبع di julli de sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa ana yan sabab ñooy yi ne nii ñooy tax ñu mën a am ngëneelu borom bi subhaanahu wa taala ak yërmandeem ba ca njëkk mooy gëm yàlla te mooy ci ngëm yàlla goog yi mooy tax ñu mën a gañe ngëneel lool yi yàlla mi ngi wax ci alquran ne fa amma alladina amanu billahi wa tasamu bi fa sa yudxiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima yàlla nee na ñi nga xamante ne nii nag gëm nañu yàlla ba pare ngoy ca ñooñee de leen dugal ci yërmaane goo xamante ne nii ne yërmaane borom bi la subhaanahu wa taala ak ngëneelam yàlla dana leen gindi ci yoon wu jub bi bokk na ca sabab yooyu mooy gëm yàlla tey def lu baax yàlla mi ngi wax ci alquran ne walladina amanu wa amilu salihaati fi rawdaatil jannaat lahum maa yashaa'uuna inda rabbihim daalika wal fadlul kabiir yàlla nee na ñi nga xamante ne nii nag gëm nañu yàlla tey def lu baax ñoo ñii day bu ëllëgee dañu nekk ci dëri janna te danañu fa am lu leen neex te loolu mooy ngëneel la ñoo xam ne itam ngëneel li gën a rëy mooy ngëneelu ngëneel li gën a rëy fii ci àdduna nekkul ne wërsëg wu yaatu waaye nag am mbégte ci làq ngëneelu borom bi subhaanahu wa taala moom mooy li gën a rëy ci ngëneel yi ndax yàlla mi wax mi wax ci alquran ne allahu yabsutu rizqa liman yashaau wa yaqdir wa farihu bil xayaati dunia wa mal xayaatu fi l axirati illa mataa yàlla nee na yàlla yaatal wërsëg ñeel ku ko neex ci jaamam yi mooy xatal wërsëg yitim ñeel ku ko neex ci jaamam yi waaye nag danañu gis ne nit ñi day dañuy kontaan lool ci dunduk àdduna gi te dunduk àdduna gi ci àllaaxira nekkul lu dul dund gu gàtt lool nekkul lu dul bànneex bu gàtt lool te yàlla nee na qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrahu huwa xayru mimma yajmaun yàlla nee na waxal yonente bi waxal yow yonente bi sallallahu sallam ne ngëneelu yàlla ak ngërëmam ngëneelu yàlla ak yërmaaneem ci lool yi rek lañ war a kontaan waaye nekkul ne àdduna lañ cay dajale loolee moo jar kontaan yàlla wax ci alquran ba tey ne wasalullaha min fadli ñaan leen yàlla ci xéewalam yi te xam ne da koy joxe dong bokkoon na ci ñaan yi nga xamante ne nii ne yonente bi sallallahu alayhi ko ñaan ba pare digal ñu ñu koy ñaan ci bu ñuy dugg ci jàkka allahumma inni asaluka min fadlik wa rahmatik yàlla ñu ngi lay ñaan ci sa xéewal yi ak sa yërmaane gi kon mbokk yi nañ xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ñuy wan xéewal gi nga xamante ne nii ne yàlla defal na ko ko muy xéewal yu yaatu lool yu bari lool ba yàlla naan ko inna fadlahu kaana alayka kabira ngëneelu yàlla ci yow daal bari na lool mbokk yi nañ xam ne bokk na ci ngëneel yi ñuy yàlla defal mooy ne yàlla daf ñoo defal ñu nekk xeet wu gàttu gàttu dund waaye nag yàlla defal ñu ay palaas defal ñu ay guddi defal ñu ay jamono defal ñu ay xew-xew yoo xamante ne nii ne lu luñ ca def rek yàlla da koy fulandi def ko ay yool yu rëy rëy lool bokk na ca euh, li nga xamante ne nii ne mooy guddig laylatul xadr ku ne xam na ne guddi laylatul qadr genn guddi la goo xamante ne nii ne moo gën junni weer seetal fukki at rek su fekkente ni yaa ngi dundal guddi googu di làq li gën junni weer ñaata yool ngay am do kon lu saw fan gàtt-gàtt soo góorgóorloo rek yàlla mën na laa defal nga raw sax ñi nga xamante ne nii ne ñoom la yàlla mayoon fan yu gudd ñu ne ci jamono yi ca jamono yi nuux amoon na benn jigéen boo xamante ne da doon jooy doomam ndax dafa faatu ñu ne ko sa doom ji ñaata at la am mu ne ñaar téeméeri at la am waaye dafa gàtt fan lool moo tax muy jooy ci faatu gi mu teel a faatu ñu ne ko xanaa xamoo ne mujjug jamono am na xeet woo xamante ne dañu ñëw woo xamante ñi ca gën a gudd fan duñu téeméer lañuy am wala duñ ko am mu ne ñoo ñee de suma ca bokkoon fa ma toog fa ma juddoo foofa laay toog du ma tala lekk du ma tala nelaw du ma tala naan xaar déegi te xam ne léegi mu ñëw kon mbokk yi nañ xam ne yàlla daf ñoo defal ay jamono itam yoo xamante ne nii ne luñ ci jaamu yàlla yàlla da koy fulandi lu mel ne weeru koor yàlla defal ñu itam ay place yoo xamante ne luñ ci jaamu yàlla yàlla da koy fulandi lu mel ne masjidul haram suñ fa jullee benn julli mi ngi tolloog téeméeri junni julli yuñ jullee feneen naka noonu itam masjidu nabawi suñ fa jullee genn guddi mi ngi tolloog junni julli yuñ julli feneen masjidul aqsa suñ fa jullee genn julli mi ngi tolloog juróomi téeméeri julli yuñ jullee feneen kon loolu ak ngëneel la goo xamante ne nii ne yàlla moo ñu ko baaxe defal ñu ko ngir mu remplacer sunu at yu néew yooyu nga xamante ne nii ne yàlla defal nanu ko kon yàlla nanu yàlla defal dégg ak topp yàlla nanu yàlla may xéewalam yooyu ñu xam ko te sant ko ca te delloo ko ca njukkal yàlla saxalal ñu xéewal yim ñu defal قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون